tey roy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci ak dëgg radiyallahu taala anhu te yéen ñëpp jàmm di ko ñaanal addina bi di ko ñaanal jullit yi na sunu réew mee di Sénégal di ko ko ñaanal di ko ñaanal doomam yi nekk ci bite gi nekk ci biir di ñaanal kilifa yi diine yi nekk ci bopp yoon yi suñu borom leen leen sàmm doon leen suturaal ba li nga xamante ne si moom la seen waajur ya fondé woon ci Sénégal ñu mën ko mottali àgg fu kawe njort yàlla nañ ko ànd ak ñoom ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke Cheikh Ahmadou Bamba mbokk yi tey dañuy ñëw tey ci thème boo xam ne bëgg nañ cee soññeewaat fàttalewaat ci dàggewaat ci ëllëg yi ñuy mën a bàyyee ci tollu lislaam te gis nañ na gàllankoor gi nekk ci àddina yépp yépp yépp yépp foofu lay nekk muy ñàkk nangu dogalub yàlla te dogalub yàlla moom képp ku ko nanguwul da sonn ndax lu am yàlla loo am rek yàlla loo am rek yàlla ci ndigalam it lay amee dogalub yàlla nag daf góor yàlla goo fi mas a jaar moom nga téye sab liggéey ba liggéey ca lu kawe jot dogal bi dogalub yàlla góor gu fi mas a jaar wala góor yàlla gu fi mas a jaar moom nga téye lala yàlla dénk moom nga ko aare moom nga ko sàmme ba liggéey ca la la taxa am maktaba ba nga am moo tax sunu yaakaaru tey ëllëg seexul xaddim bi mu dikkee dafa ne man day lépp lu yàlla dogal rek neex na ma lu yàlla digle def naa ko lu mu tere masi su ma cee seen waaye lu mu digle lu mu dogal neex na ma nangu dogalub yàlla moo tax mu am ak tabam xaadim rasul su neexee mu xam ne yàlla bu naqaree mu xam ne yàlla moo tax daana wax sax naan yaa rabbi in axtaytani fa sukkur wa in manata faridan wa sab su ma ñaanee yàlla mu may ma ma sant ko su ma ñaanee yàlla mu gàntal ma ah ma muñ rek te xam ne ñaan yàlla mu gàntal la mooy dëgg-dëgg ak may ndax ci la lay nëbbal say ayib ci la lay suturale dogalub yàlla nag mooy nga am yéene ju rafet ci nit te lu yàlla defal nit it nga xam ne lii yàlla waaye du ci yow du ci moom ndax bu doon ci yow a ko am bu doon ci moom it yaakaar naa ne dana deme neneen yaakaar naa yow mi ko koy ñàkk yéene doo ko am yowit bu mukk ngeen xam ne xob bu nekkoon ci garab tooy xépp woowee ca garab ga ba daggee ca garab ga ne ca suuf ngelaw la koy jël di ko yëngal day ànd ak dogalu yàlla amul dara lu nit luy am ca kaw suuf te yàlla dogalu ko noyyi gi ngay noyyi yàlla la neex sa ndëgguy tànk yi ngay teg ci suuf jóg taxaw yàlla la neex dox gi ngay dox yàlla la neex xoole gi ngay xool yàlla la neex loxo yi nga yëkkati yàlla la neex lekk gi ngay lekk yàlla la neex lépp lu am rek yàlla la neex man saa la si yasfau indahu illa bi isnihi yaxlamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum lu am rek ci loxol suñ borom lay dogal kon nag na ngeen xam ne nit ki du am luy am ci moom te du dogal yàlla man nga bëgg dara lool di testé si di ko sàmm di daw di yuuxu di wuti wallu waaye dara la ca yàlla dogal dogal na ko ci ba noppi bu dajee muy sa bëgg-bëgg xayrun bu dajalu muy sa bëgg-bëgg nga xam ne yàlla kon nag xew-xew bi xew ci senegaal nit ñi di coow bu yëkkati mbir mi mukk di ko jiiñ nit defe ne liy am ci nit lay bawoo sabab bi xëy na ci moom lay bawoo waaye jëf ja dogal ba cay am suñ borom lay lay neex ndax yàllaa fi indi ñëpp daal ñuy daal di bind ñaar muy dee ak dund xalaxal mawta wal ayaat booy dund yaa ngi ci suuf di dox ak a wax boo dee fàtte nañ la yaa nga bar sàq kon nit mënta jëme aw lor mukk ci mbindeef mu àntu te neexul yàlla waaye nag lu mu ko jekku jekku jekku jekku su yàlla nee déet rek déet lay doon moo tax nag ñun ñi nga xam ne ñooy arbitere lu mën a am nañ ciy jiital yàlla bañ koo jiiñ mbindeef mu yàlla sàkk bu ñu amee lañ bëgg nañ ko sant yàlla bu ñu amul lañu bëgg nañ ko muñe yàlla mu jeex tàkk te xam ne ñi nga xam ne ñoom la topp ci biirum àddina mii ñoom ñu na yem ci yàlla doom kenn mënalul sa bopp dara ndax dañuy dox dañuy lekk dañuy naan dañuy dee non seulement dañuy nelaw te yooyu yépp kenn mënu ko defal sa bopp yàlla lay neex mu defal la ko kon nag jël aw loraange jëme ko ci nit nit ñi defe na loraange joojee yow mën nga koo teg nit ba tax fër-fër ji bari coow li bari kenn ku nekk di wax loo xam ne si dalay faralee sa diggante yàlla nañ def ay dog nañ def ay ñaan nga gis ko taxaw waat nangam du am diw dana nekk président diw dana nangam yooyu yëpp ay xeetu kiifar la ak xeetu wedd goo xam ne fexe nañ ba téléchargé ko ci jullit yi léegi au lieu que ñu gëmati léegi dañuy gëm yàlla tuuti ci lu leen neex rek waaye bu dogal ñëwee ñu naat koy jël sëppi ko keneen teg ko keneen defe nañ na loraange ak njariñ moom ci loxol nit la nekk te sëñ Tuubaa nee na addurru wa nafu min arrahmaani laysa min al bidaani wa sudaani man de li ma gëm ba gëm ko mooy yàlla moom leer na ma ne ku mu làq nga làqu ku mu aar nga aaru ku mu musalit nga mucc ku jàng istiwaar xam ko ndax ko ku mu wóor ne indi woo sa bopp mënoo sàkk sa bopp te booy dem it mënoo fee fipp ba téye sa bopp war ngaa xam ne kon leneen lu am si biir dund gi yëpp suñ borom la neex lépp luñ bëgg mu àntu rek na xam ne dogalu suñ borom suñ borom nag day def bu dee yëkkati nguur du caa gën a yàlla day wàcc nekk jëmm nga ko gis ne kii jëmm la yàlla du xeexe noonu waaye day fexe ba dugg ca xoli nit ña téléchargé ak cofeel ci digganteem ak kenn bëgg ba ñu ëpp ci nit ñi ñëpp maase jublu kooka yàlla noonu lay fale nit su ko defee ki nga xam ne nit moom i tamit nit ñi lañ ko bëggul day dugg ci xoli nit ñi telesàtta ci ak mbañeel ba kenn du ko bëgg a xool koo wax mun a cim noonu la yëkkatee nit noonu lay daanele nit kon na ngeen xam ne nguur yàllaa koy joxe de nit joxewu ko de képp ku taxaw na ñoo koy joxe war kër sàngam a koy joxe waxoo dëgg kër ga nga koy askale la ñoom joxuñu kenn nguur ñoom waxal nañ ko seen bopp qul illahuma malikil mulki tuuti mulka man tasa wa tanfihul mulka mi man tasa wa tu'izzu man tasa wa tusillu man tasa bi yadika al-ghayr innaka ala sa shay'in qadir loolu yàlla dong nga ko moom keneen mënu ko kon nag luñ bëgg lu nekk nañ dëkkee yàlla loxo yi te dékk yàlla loxo yi nag boo ne ko yàlla ana nga mu ne la maa ngi nii moom du aw làmmiñ a koy wax fexeel ba sax ci jaamu yàlla rek boo saxee ci jaamu yàlla loo soxla boo ne yàlla may ma ko suñ borom dana la ko may jaamu yàlla rek te jaamu yàlla du julli juróom rafetal ya ca am yépp da caa bokk muy nangoo liggéey tey saw làmmiñ ci lu sa yoon nekkul tey ormal kilifa tey ormal ko yàlla ormal wa man yuassim hurmatallahi fa huwa xayrul la màggal yàlla mooy nga màggal lu màggal su ko defee nag nit moom yéene rek la am te innama ahmalu bi niyati wa innama li kulli imrin man nawa nit bu yéenee tey def lu bon jëmee ko ci nit yéene jooje day dil ci kaw balu taxi la boo jàkkaarloog tabax noo ko xàccee doole di la jël siwaat si yow kon na ngeen xam ne yàlla fii nekk te du fi mas a jóge bu mukk te yàlla dong na yàlla nag ñaari yàlla amul ñetti yàlla amul sëñ Tuubaa bañ na ko ba korisi woon ci yéefar yi nga xam ne ñoo ko toppoon ko koy yaay jumlatan xat sallasu bi la laalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu axrajtumuuni naatixiina bi annani abdun ilaahi wa ilayhi la mujaahidu gis nga ni ko sëñ Tuubaa waxee yéemu ci ñi nga xam ne dañoo wutal yàlla ñett kooka nag xam ngeen ne doy na préférence kon nit ki lu mu yéene yéene nit ci lu bon ak lu mu mën a doon ak doole ji ko yàlla jox ba mu defe ne kenn mënta dox digganteem ak loola fekk na yàllaa ngi ci yàlla diggante bën bënu pusa ni mu ni mu xate yàlla loo gaaw gaaw a dugal dara ci biir bën bën bi yàlla mën naa dox ci diggante bi loolu moom bu ci kenn am looy sikk sàkk xef xipp yàlla mën na cee def lu kenn mësta xam xam kon yàllaay aaree kon lii xew ci réew ma politique bi ñu jël président de la république def ko yàlla muy toog defe ne moom yàlla la na xam ne li ñu ko jox joxoon nañ ko ñun la ñu ko jiitu ci àddina ay siècle te réussiruñ ko kon nag moom it na xam ne du ko réussir bu mukk ndax yaakaar naa bon ci firxaw na la yam te firxaw na gis ngeen nguuram nga fa mujj ka ko daaneel yorul benn ngànnaay bu dul turu yàlla rek ak yàlla ma ko aar kon na ngeen xam loolu lu ngeen bëgg bëgg it ak lu ngeen jege jege yàlla rek bu leen naagu ci yërmaande sëñ borom mukk ndax def lu baax téewut amul natt waxoon naa ko dem julli jaamu yàlla defe na yàlla dala koy fay daar daar ci ni nga ko xalaatee demewul noonu man ngay julli suba ngoon di jàng suba ngoon du teegut bi set lu metti dong moo lay dal waaye yàlla ma tax ma la ko defe nag am na lu la fayal kon nañ ko jàppe noonu te dal te bàyyi kilifa yi ñu topp di saaga bàyyi kilifa yi ñuy topp di di xas di wax lu suñ yoon nekkul ba loolu wàccee nañu ci fi nga xam ne fi lañu suñ borom tegoon te la julli julli gu baax te la tunoo laab laab gu baax te la tunoo jàng te la tudd yàlla te la tunoo sikkar ñoo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te la sàbbal suñ borom bu ñu ko xëy ci politique bi ngay nekk rek politique bi diw nee na diw nee na nee nañ ko diw nee na nee nee nañ ko rek ngay dégg nga xëy ci loolu nga xam ne bañ ko topp ak léegi ñaari at ñaari at nag ku xëy ci loolu di ca gont war ngaa xalaat yow lan nga def sa diggante ak suñu borom ba bu ëllëgee bu fi yàlla teqoon sa ruugi jëlee ko fi boo duggee bàmmeel da nga am loo loo la accompagner lu mën a dalal sam xel ndax làmmiñ wuy xëy di xase gor làmmiñ wuy xëy di wax lu mu wërta wax làmmiñ wu dul jàng alxuraan du sikkar làmmiñ wu dul sàbbal suñu borom làmmiñ wu dul julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu xëyee naan jàpp nañ ko def nañ ko di wa wax ak waxul rek jëli wax transfert ko wax lu bon ci nit nga jël ko sànni ci group nit ñi di ci commentaire di jëw di jëw ba ngoon jot nga tëdd boo fajaree xëyate nekk ci kañ ngay def lu baax te na leen wën a temps bi moom di leen xaar ndax li la war a jël si moom bu fekkul say bagage jekk bu nee digaaree ci kër gi danga dugg te loo programme wala doo ko yóbbu looloo tax ku tedd ki di wax war xabul asiya ali am watti raddu ila dunya maal hayaati càkkutee fa kafaatu du lenn lu dul dir siwaat ci biir addina na ngeen xam ne surna bi day bés bu lay romb jàll na say at di yokk say bis di yokk bis bi bu jàllee te yóbbulu la dara sa laat nee na boo demee doo fekk dara bi bis bi moom na nga fexe ba lu mu gàtt-gàtt yóbbulu yu waaye di xëy rek nekk ci ay commentaire xëy di xool ay journal nekk ci groupe whatsapp bi whatsapp boo génn dugat ci beneen lu fa waaye wax nga ne ko cas yóbbu ko sànni ko mu tasaaroo ci àddina bi di di dem rek loola ko ca participer war nga tiit ndax fi ne nii jamono ji xat na xataay goo xam si kenn ku nekk war ngay waajal ëllëg war nga koo waajal ci ay rakka war koo raajal waajal ci njàng war koo waajal ci lu baax war koo waajal ci lépp loo xam ne ni bu ëllëgee buñ la ko tegalee danga nga danga ko mën nangoo sa loxo bi lay jox waaye xëy rek nekk ci dégg la diw wax diw xaaral ma partagé la ko dégg la diw def xaaral ma yónnee la ko te li ñuy yónnee nag du doon lu baax ndax lu baax moom dañ ko fay romb teg ko fee ndax xam nañu du actualité léegi nag groupe boo ko sànn ku ne am teew laaj mel na dogu yàpp woo sànni fii bukki rek kenn ku nekk di daw di njëkkante wala nga sànni amburu ci ay petax ni ñu dawee di ko njëkkante bu group bi loo ca sànni da nga ci bàkkaaru yow mi ko fa sànni yow yan wala ci bàkkaar yoo xam ne si ña ngi ko jox ñëpp kenn ku ci fàtte te nit ñi lu bon rek dégg nga li ñuy wax sañ diw dégg nga nangam fi ne orma ci boppam amatul si biir ci ñun sutura amatu ci xawente sutura rek ak xotte ay orma koo mësta yàpp yàpp nga ko léegi koo mësta ñemee jàkkaarloo moom di ko sànni euh, di ko ormal di di di ko wax lu bon léegi yaa ngi taxaw ne ko fan def ko ci écran bi ñëpp di gis ñu di ci am ay wii di la ci fay alal ju dul jeex te yi ñuy xeex yépp jërul xeex bu ñu wëkkali woon ci yàlla rek coow du am bu ñu woon ci yàlla coow du am ndax ab xaj boo dawee mu daw song la bëgg laa matt di bow ngay kërte kërteeg moom te fu mu jaar xosi la wala mu kii la xeex ba ngay xeex moom fexe ba wax ak borom da koo gën boo wax ak borom moom bu ko ne ëcc rek mu la di wàññi ko léegi kon nañ yàlla li feeg ñi ngi ci lii day buñ soppi yàlla du soppi jamono mukk gi day gën a jege feebar bi di gën a bari ñàkk gi di gën a bari sutura si di maanaam di gën a xawente ko tiitaange ji di yokk fér-fér ji fitna ji lépp di gën a yokk ndax inna allaha la yuxayiru ma bi xawmin hatta yuxayiru ma bi anfusihim ku xool nag kenn ko ne lii may wax mën nga koo xool ci sa bopp xoolal bis bu set ba nga xëyee la nga la nga xam ne def nga ko mu wër na ni dal nam xel ci lu baax wan téeram alxuraan fee nga xam ne jël ko jàng jàng ci donte ay isib moo gën tuyaaba lépp loo mën a def nga jël téere ba bàyyi ko ca ca kaw muy fënd wala nga dugal ko foo xam ne si duutoo ko laal boo xëyee sañ bi di ngay téye téléphone bii moo ëpp fu ku ñëw fekk la ci téléphone bi nga sëgg ci loo génn dugat yi boo génnee YouTube seetaan vidéo yi boo génnee yaa ngi dem ci Facebook bi ubbi xool keelam publier keelam wax déggal kii nangam wax ci loo xamul dégg nga yooyu yëpp di ci am waaye téere ba moom doo ko laal waxuma la kurus waxuma la nag jàpp dem di julli te fukki xel booy julli sax doo ko tal yaa ngi yàkkamte ba xam boo déggee téléphone ba nag keng boo gaaw sëlbal la ca nga war a def doo ko def baqiyatu saalihaat ya nga war a def yëpp doo ci def dara da nga naan bëreet daal di gaaw dem fëkk téléphone ba nii surtout ñu da ngeen i wax déggal li kii wax xoolal li dugal ndax jot nga ci xaaral ma partagé la ko nangam ak nangam nangam daal di daggal nit aw saaga bañ nit saaga ko bëgg wax ko loo xam ne si wër na li ngay wax aw fen la ngay bés bu set ngay dëkkee aw fen ak yeew fitna bés bu set ngay dëkk aw fen ak waaw kon nag nanu gëm yàlla te xam ne lu am yàlla la neex yàllaay fal ku ko neex fii ñu ko teg du ko fi nit mënalul boppam tus lu mu def mu antu rek dafa fekk suñu borom nekk ci waaye nit ki moom na la wóor ne doole ju mën a am suñu borom ko jox waaye bés bu ko yàlla ne roccetit day mel ni mësta am dara ku ko wedd xoolal mbërub làmb mañ tëral ci lalu hôpital ba nga xam ne tëlatul dara la ko yàlla sa fa gën a diis fuuf doole jëm yoroon te doole jëre ci daan daan di def lépp tey nag jëfalul yàlla dara ma nga ci hôpital ba la lasin dama koo misaal ci mbërub làmb waaye lu ne mën mën nañ ko misaal ci loolu kon nag nañu wëkkiiru te xam ne senegal gee képp koo xam ne day ab jullit nga rawatina na ngay bokk ci taalibe Sëñ Tuubaa yi sag natt sag bëgg sëñ tubaa wala sag natt sag gëm sëñ tubaa day nekkul ci kenn ñëw naan la gëmoo sëñ tubaa wala yaa gëm sëñ tubaa gis nga gëm sëñ tubaa ni ma leen koy mën a misaale ci yaxetalu wax ni gis nga tey boo gëmee ne sëñ tubaa nitu yàlla ko yàlla yónnee wu na te lu mu ñaan yàlla nangu na ko te lu mu wax na yàlla nangu na ko danga ko gis mu ñaan jàmm ci àddina bi ñaan jàmm ci réew ma ñaan jàmm ci jullit yi ba wax ne irham jami xal waraa ci bindeef yi dégg nga sëñ Abdou Lahad doomam dikk na réew mi lu dul jàmm fi am ku fi bëgg andi aw ay du la may yow nga ne gëm nga sëñ Tuubaa te gëm nga lam wax nga wax ko ci làmmiñ ba ñëpp dégg ko ba pare waxtu jot nga naan réew mi dana tàkk ak diw dafa bon ak nangam ak nangam kon yow da nga gëm kana dana taal réew mi waaye gëmoo sëñ Abdou Lahad gëmoo sëñ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa gëmoo ko boo ko waxee da ngay fen rek naa feq nga gëmoo ji dara waaye boo gëmee la sëñ Abdou Lahad wax xam ne sëñ Abdou Lahad yàlla la te moom la yàlla gën a faral saay-saay bëgg a bëgg a yàq lu baax kon bu boobaa sam xel dana dalal réew mi lu dul jàmm du fi am te buñ ko doon analyser par benn ay nit a ngi ci biir réew mi di dund nekk ay sénégalais nekk ay homme de politique yoo xam ne kenn ku ne ndombal tànk bañ la joxoon la nga ci doon jéem a def ci lu bon ngir dindi waxi sëñ Abdou Lahad jooje tey dem na ba këpp ci sa kaw ba jëlatoo dara ñenn ñu ngi ci jafe-jafe ñenn ñi lañ bëgg duñ ko am bu mukk kon nag da nga koy gëm wakkirlu ci yàlla xam ne ñoom la ñuy wax yàlla leen koy wax loolu la ñuy def yàlla ci yàlla ndigalal yàlla lay am nga xam ne loolu lay am waaye gëm lii gëm la lay waxtu jot fit di firfiri ngay doxale sa diggante ak yàlla keneen koo xam ne si sëñ bi ab mbindeef la comme yow loolu ab jullit waru ko def man de du ma doxale kenn sama digg ak yàlla bu neexee bu naqaree yëpp yàlla bu neexee bu naqaree lépp yàlla kon ñu ngi taxaw foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf